heɓoɓe safina tv to gonɗon ene gonirɗon ɓe mbi on assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barkatu ceerno zakaya ousmane e ballal allah eɗen ɗo hannde e ñalawma hannde o sappo e jeeɗiɗi lewru men avril 2023 machallahu en mbayriɗo daran ɗo e rafi gonnoɗe oɗo aduna mbiyeteɗo coronavirus allah huuci rafi hande en dectel e leylatul gadri gam jibinede so yirse mouhamadoul bachir wurtuga laaha e woɗo nokku tedduɗo hande jiyaɗo allah e seere ndi heddiɓe ƴuuɓe fof ɗoɗima cheikh oumar no heewinodire allah umakkol yaade amira woɗande hande kadi ma wonɗo way hokkulle ne yesma ceerno zaka ousman allah jarama jarama ceerno bassir ɓite bandiraɓe ɗ surtout kamɗo ma wonde duɗi bawaɗo ɓe islam sahiɓe mbaɗaɗe plaɗe mbiye kadi kadi fuɗɗade golle wona ñalawma kono no mbirɗen ñalawma wala so ari ene fof ken aroɓe jalo ko leltude kadi ɗo ɗum ɗene ceer pol donc mo ganduɗa hoorema mo ceer mo ceer basir mbiɗaɗa ha cheikh subhanallah taala mo yi aduna allah adi en hande caggal ne joni ɗiɗiɗi ɗum waɗani allah adi en ɗo hande en mbiya alhamdulillahi rabbil alamin ceer basir mbiɗani en jurnatako alhuɓe gaari gummima faade jimɗi en gaccaɓe tan ɗum continue salde inchallah sen gayde men guddoy nde wonno ko joni wonde fuɗɗi noon ha eɗen ɗo hande ko sappo e jeeɗiɗi lewru avril hitande 2003 ɗo e ceer pol ene gari noon ceerno men ceerno hamidou yan bara e denndaangal délégation ɓe warde kamɓe kala en calmini denndaangal fm to kadi men dix tv meɗen kaɓirɗe ko mbawde islam gayen sa mamadou sy allah jarama en mbawen tonngude golɗe en paɗi haalifo ceerno ceerno fasiyde mudugade arrangement foti yetade keɗo calle barkinmen beela walla men duwawa ene ñagal yen barkin gori ceerno fasiyde bisimilla allah jarama a jarama matiére zaga ousmane bourandi hankkadi en gaccat sabine tv meɗen waɗa directe golle ɗe ko adi di aɗa allah o se isa amdi basi mudiga laaha ɗofogol makko toon to luga eno jogo natide hande thiar e, e ngal ɗo digiral eɗen ɗoɗo jaade hen trois heure jamma heddi e ko seeɗa eɗen gandi koma warande golle ɗe puɗɗo ceerno men ceere sadi makki haydara nen ɗo ceerno men ceere hamid atman den bokara ɗum lolli ceerno men ceerno yaro e dendagal safina tv e safide v fema machallah hande ko golle mawɗe ko haala ma ko wonɗo hande bisimilla ba alaji samba si ha yesso ko lawol الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء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

منك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم tabarakallahu Cheikh Tidiane Haydara kooku di Cherif Mbacké Haydara ren mbiyaamo Allah jaaraama o jaaraama masha allahu onon wonde ɓe gamal ngal sire degle gamal ngal ɓe ganna yimɓe ɓe yo kaalani so kaalanama yo kedde hen woni heɗi faaɓe arɓe daggol ɗumen damal kaw sukaɓe beriɓe kalda e moɗon ceerno bachir diallo en beriɓe ɗon fof wonani ɗon daraje uddite dangal ngal kala foɗɓe natuɗon naati wallodiren hen foti kamɓe ɓe ganda yimɓe ɓe oɗon kalantani bisimilla bandiraɓe hajo joni eɗen jokko golle ɗe délégation ngaji gardiɗi sharif mo ceerno ahmadou oumar ko hoore ñiiwa o ari gila hanki omo arde délégation mawɗo ɓesgu ceerno ahmad oumar e hadara ceerno ahmad oumar hoore ñiiwa kamɓe fof ɓe ngari eɓe ngarde khalifa o ono ceerno sharif mo ahmad oumar eden mbiyaɓe bismillah mabbe cerno umar mahi ummoriɗo en to bamako koye taniraɗo cheikh jobi ne to bamako gati gaati jeyɗo ceerno mouhamadoul bachir montakaka ha cheikh umar kala hitane so min de bamako cer mohammed al bashir jipoto ko galle makko den nagal ismu cheikh alhaji oumar foppuɗon tawata mohammed al bashir o arino car o arino halwar allah kadi addimo eɗen mbiyamo bisimilla makko saidu ma saidu mahi to bamako ko minum ceerno oumar mahi ko kañum woni jatigi ceerno mahamadou bachir o eɗen mbiyaɓe bisimilla maɓɓe e nokku maɓɓe e galle maɓɓe sharif habiba haydara mo sharif tamarowel to matam ammone dental he sharif makki haydara gonganduɗa ɓiɗɗo galle o ko almudo galle o ko giɗo galle o ko daraniɗo galle o eɗen mbiyamo bisimilla kanko e délégation makko mo ardi site alim sow kanko woni toon imam ratib gardi toon juma o e diine o e l'islam o e tijani o e en ɗam ɗam o ari kono ko ɓiɗɗo galle o eɗen mbiyamo bisimilla makko ceerno hamidou yaraban o escal urban alhamdulillahi kanko ne o ari Omar de délégation hadara makko mawɗo o kamɓe fof o addi ɗumen appel ɗo eɗen mbiyamo bisimilla ko giɗo ceerno mahamadou bachir ko giɗo cheikh oumar kon joom safina mo cheikh alhaji omarul foutiyo fof of makko en ɗi ɗum alhamdulillah rabbil alamin en jetti allah en juule nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam en jetti allah kadi tagga en mo waɗanno waɗa en o ittiɗo fasara mo leɗɗe hakkulle he ina woni ɓerɗe men eɗen jaaha allah addi kadi fatara o ittiɗo haa ɗum arte ɓerɗe men ɗum en fottiɗe ɗo sabi allah e ngamdu ɗigal nelaɗallah sallah alih wa sallam e barke alhaji umar al fouti e yamirore mouhammadou rasulullah bandiraɓe on calminama goto foof inde mum e yettode mum on jarnama kadi on mbiyama massa e bolol he massa tampere he massa kadi e he kon mbiyama kadi bisimilla mono nokku moon bisimilla mono dongre moon bisimilla mono ɓesngu moon bisimilla mono sehilaɓe mono geɗe moon ɗiɗo mahamadou bachir moon ko jaɓa kala mo ganduɗa a salminama inde nelaɗo allah sallah alayhi wa sallam a bismama hen a accinaama heen haqqe a massaama heen kadi coomagal allah kala heen mo ngannduɗaa ka tanum sawi umar al fuuti radiallahu taala ɗum ɗo fof ko ɗum sababu e barke montaga ɓaha ɓaha sawi umar sabu ɗum fuɗɗode he ɗum musino yahi yahi ina yaha ha allah wayi ɓe tawi ɗon nden huɓɓoteke leɗɗe kuɓɓoteeko ndeen kuɓɓataa ko duɗal kiirton haa cafton ndiroeɗo haa ɓe immii ɓe ngartee sonndel ɓe immee sonndel ɓe ngartee lam ɓe immii ɗoon heɓe njaha he ɗum yaha he ɗum wonɗo nder suudu haa ɗum yalti damal suudu ɗum immii damal suudu ɗum yahee dingiral wuro ɗum immii dingiral ɗum yahi ɗo palace sifa damal jama nden de muntagaɗa ha rewi do tawi ɗo jemmo wi ɗumen ko jom jemmo siwa ar si jom jemmo ari mon on gandu ari ɗum non basiru ari kala ɗo neɗɗo woni aduna he kala ɗo neɗɗo woni a dongre he kala ɗo allah tiimi neɗɗo asnano tiimi neɗɗo e dongre he a notima ceerno basiru donc montagaɗa ha haalno ari holko rewi hem mi wiino on onon almorɓe ɓe billahi wallahi tallahi si ceerno basir wuuri capanɗe jeetati duuɗi welli ko saydou nour wuurno gonɗo ɗum jamana se welama ma ñaam juurde haɗa wuuri se mettama mandi ñaam kaale hombo mon wonima ñaamani haalan juurde ceerno basir ceerno basiru ari aduna fo annadiri so wonano fittangu du'a o montagaɗa ha e fittaandu ceerno basir ɓe jooɗiiɓe ɗo fof ɓe mbawi wuur han maayo min ngannda hen hay gooto hay gooto annda amen heen esi noon nde wonɗo ɓallu ndu ndu place heen fof mbo jogii ko enɗi temedere ƴenndu heen fof ngara musna heen haa reedu ma njaha e mbiiden ɗen ngal musɗum e goɗɗo musɗum ɗum taki ɓerɗe men jurɗondiri kala ɗo neɗɗo men fotte gooto waano ko yiɗi fof en ɗo noon kodo wani caar sarhuma halwa la ha ko lambe basiru caar kosɗe fayande noon si goñi tati ko atal ngal se fokkani se saggani cagge nammarro fo ceerno dum ɗum golle mum ko adun on o nanadir aduna o renda jiida haqqille jida miijo yiida yahdu ko goɗo rewoɓe allah jokkoɓen ɗam ɗum woni mission ceerno heddi noon neɗɗo salmina e e délégation mum mbiɗa yetta kadi commandant o oh, mo ganduɗa kay woni mamadou puyi darde mum gila hanki yooɗi feewi mbiɗa yetta adituye maire kayne gila heccanki jooɗaki ñallinaani haana hannde kadi ɗum noon alaa sago oɗon arɓe ɓe kaalana ɗon ɗum min kaalirani ɗum ne yo wel ɗum min kaalirani ɗum kadi ne wonde gollani si gollano mi layata ɗum de so gollani tan mbi anmi ko gollani nden noon alhamdulillah rabbil alamin yen bokko yi ngen baalma maa ngi nuyu gennaaw yàlla ak yonte yàlla muhammad ak setti yonent yii toog ma leen di siraal leen baalu ak may nuyu seetu alhaji Umar Fuuti tal ni toog ak seeti Muntaga Daha ñi fi toog tey ci kanamu Thierno Bachir ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen massaw di leen baalu ak su loolu wéyee ñu nuyu autorité bi ñëw ci turu président de la république monsieur Macky Sall mu nuyu leen ci turu gouverneur mu nuyu leen ci turu préfet ma nuyu leen ci turu sous-préfet ak taxawaayam ma nuyu leen ci turu monsieur le maire ma nuyu leen ci turu commandant Birgat bi nga xam ne moo fi nekk muy Mamadou Pouy liggéeyam rafet na jekka yal na ko buri yàlla yëkka ni mu yëkkatee guddig Laylatul Qadr kon nit bu la defalee lu jar wax wax ko mu dëgg bu ñibbee mu xam ne yow saxoo nga ko wanndiraaɓe oɗon njarlo noon oɗon njaafoo ko ɗon kadi ɓesdo du'awo du'awo o oh, kam boni ɗo en ɓesdat tan allah junnu balɗe ceerno basir allah junnu balɗe ceerno basir allah junnu balɗe ceerno basir enen fof guurden heen maayden heen sabu neɗɗo kala jali sali ndigal njaba mbugal te kala mo mbugal jaggi feere ma bona yo allah dandu ene salaaɓe ndigal yo allah waɗɗene ndigal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 et chef de village di nuyu ki nga xam ne itam mooy imaam dëkk bi di nuyu ki nga xam ne mooy Cheikh Omar eh, di nuyu ki nga xam ne ki itam mooy gouverneur eh, di nuyu préfet di nuyu sous-préfet di nuyu sécurité bi yëpp di nuyu chef de service yi nga xam ne ñoom ñoo fi ñëw fekkee woon CLD fekkee CRD fekkee CDD yépp macha allah liggéey liggéey bu rafet ñu sant ci gouverneur taxawaayam bu rafet ci liggéey bi nga xam ne moom lañu nekk tey ji mooy guddi laylatul xadra di ko rafetlu lool liggéey bu am solo yàgg nañ fi gis ay gouverneur mais ki nga xam ne moom moo fi nekk muy bu Buya Amar macha allah ñu ngi koy sant bu baax ndaxte liggéey bi mu liggéey am na solo lool euh, ñun collectivité locale bi euh, ñun gis nañ ci taxawaayam bu baax te am naa yaakaar ne ñun la ko defal ndaxte fi nga xam ne lépp loo xam ne li motuwaay la si dëkk bi taxaw na ci wone ci njàmbaarte lool guddi ak bëccëg chef de service yi technicien yëpp ñoom ñoo fi ñëw nettoyer dëkk bi ba nga xam ne ñun tiitaloon nañu lool ndaxte lii gëj na am ça fait ñetti at loo xam ne lii jaaruñu ci leeltul xadr bi kon loolu suñ koy waajal noon dañuy am suñu fit duy xaw tuuti mais gouverneur taxaw na si lool jàppale ñu ci baaxa baax ba dëkk bi set wecc ba nga xam duñu ragal benn gan bu jóge fenn ñëw fi fekk dëkk bi salté koku duñ ko koy santé bu baax Diko indil nuyo monsieur le maire ya Ba su fekkonté né tay ji mom itam euh amna fu mu nekk su fekkonté né tay ji mo am mom moy ñëw taxawal bopam fi mais li nga xam ne lii li yàlla dogal dafa am ci yeneen liggéey boo xam ne bi ci la nekk kon nag ñu ngi koy sant bu baax nekkal ñu ci loolu ñu lekkal ko fii kon nag noonu la demee di sant bu baax sécurité bi nga xam ne moom itam vraiment macha allahu liggéey bi nga xam ne moom lañuy liggéey guddi ak bëccëg waxtu wu ne saa su ne ñu ngi fii ci biir dëkk bi loolu ñun ñu koy rafetlu bu baax ak commandant Pouy macha allahu ak àndandooyam yi nga xam ne ñoom la àndal ci liggéey bi waxtu wu nekk ñu ngi fii kon nag loolu dañ koy rafet rafetlu bu baax di ñaan yàlla itam liñ ko ñaanal yàlla yokk garaatam bu baax a baax ndax sécurité dafa am solo su amee nit ñi seen fit danañu dal suñu tëddee daañu nelaw am na ñi nga xam ne ñi suñu delee seen li ñu war a def muy lekk naan suñu paree dañuy tëdd mais ñoom suñu defee loolu dañuy jóg taxaw kon nag ñooñu ñu jara sant lañu ñu jara gërëm lañu ñu jara ñaanal lañu kon nag ñooñu yal na leen yàlla jàppale ba nga mën a taxawaay bi gën a mote gën a mote encore di sant euh, gouverneur sous préfet ci arrondissement bi macha allah taxawaayam nun amuñu natable ci taxawaay bi macha allah. liggéeyam depuis ñu def CLD ba tey ci jógul fii ci caar waxtu wu ne ñëw na fi waxtu boo waxoon na dañu fi ñëw rek danañ fi ñëw taxawu biir ci caar di xool di saytu liggéey bi macha allah loolu rafetlu nañ ko bu baax ndax nu lañ ko defal ñun collectivité locale bi lépp lu ñu fi def rek ñun lañ ko defal ndax su fekkente ne am na nu mu demee rek mu yàqu rek suñu der moo yàqu te ñun itam ñaanuñu yàlla loolu ndax liggéey bi nga xam ne. Eh, Thierno Bachirou Tall moom moo koy def yàgg na buñ koy commencé def looloo ma mag mais ba tey jii mu toll fu mu tollu loolu su fekkente ne ñëpp ñëw nañ di ci jàpp kooku ñu koy rafetlu bu baax di ñaan yàlla yàlla saxal ko ci eh, liggéey bi muy def bu baax a baax di sant préfet moom itam macha allah liggéeyam rafet na eh, waxtu wu ne gis nañ ko adjoint mu ngi nii toog mi nga xam ne CRD yëpp. taxaw na ko CLD yëpp taxaw na ko loolu itam ñu ngi koy rafetlu bu baax di leen sant bu baax di sant jeunesse bi nga xam ne bi moom moo nekk fii ci biir Thiar ñoom itam seen liggéey waxtu wu nekk ñu ngi koy def di sant éclairage yi nga xam ne les euh, Sénélec macha allah ñun ñoo ànd ci liggéey bi waxtu wu ne ñu ngi ci liggéey pour éclairage bi gën a baax kon nag éclairage bi euh, lii bettuñu ndax dañ ko taxawu teel koo jóg. toppatoo ko ba nga xamne éclairage bi amul ben lo xamne li lii na ci lolu itam nañ koy sante yalla di santé gouverneur bu baax ndax taxawayam itam moté na ci lool euh, di santé ñep di gërem ñep di santé délégation yi nga xamne ñom ñoom ñoo fi euh di santé itam sama mbokk yi nga xamne ñom ñoom ñoo jógee bari chartol euh ma sha allah ñu ngi leen di santé bu baax di santé famille Thierno Muntaga bu Richard Toll bu Thierno Muntaga bu kumapol. ñu ngi koy sant bu baax ah, di sant ah, ki nga xam ne kii moom moo fa nekk muy Thierno Yaaya tey jii macha allah moo nekk ci kër gi ñu ngi koy ñaanal yàlla mu gudd fan lool ànd ko wér ndax man mii taxaw fii xëy na suñ ma xamee ci caar ñu ma fi xam foofu lañ ma xamee kon nag loolu yàgg na lool man ak Thierno Mountaga ak njabootu Thierno Mountaga bu xuma pël kon nag loolu. ak jeunesse bi nga xam ne ñoom nekk ci Koumba Pël yàgg nañu lool di liggéey liggéey bi kon nag loolu ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal yàlla itam seen taxawaay yàgg eh, di sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant soxna yi nga xam ne ñoom ñoo doon tame fii di nettoyer ëtt bi itam ñooñu itam ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla defal leen jàmm kon nag du ñu mën a guddal rek di ñaan yàlla rek yàlla defal ñu jàmm ñu fekkee waat ko آه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه ورضي الله عن شيخنا وسندنا أبي العباس سيدي أحمد بن سالم التجاني رضي الله عنه وعن كل خلفائه وخاصة منهم صاحب السفينة والرماح المجاهد الأكبر والعالم الأشهر سيد الحاج عمر بن سعيد الفوتي القدمي الحلواري رضي الله تعالى عنه وعن كل الذين صاحبوه في جهاده والمتعلقين بأذياله وعنا بهم آمين إخوة الإيمان ليس لنا إلا أن نحمد الله تعالى نحن في ليلة خير من ألف شهر أتينا ملبينا دعوة ونداء الخليفة الحالي للأسرة العمرية رجل خير من ألف رجل من رجال الله حفظه الله ورعاه ومتعنا بطول بقائه موعافا سليما ثم إن أخي الشيخ عمر محمد البشير الشاب القوي العزم الذي يقوم بأعمال جبارة في سبيل النهضة للشعب وللشباب الإسلامي فجزاه الله عنا خير جزاء وقد قال في أبيات يمدح به مولانا محمد البشير لولا مخافتي لقلت إنه عمر أنا أقول له لا لا يا أخي لا تخف إن البشير هو في الحقيقة عمر لا لا تخف يا شيخي إن البشير هو عمر لا شك في ذلك شيخ علمنا العلوم الدينيه بفنونها المتفرقة ورقانا وربانا وهذب أخلاقنا فله منا كل الذين تخرجوا من هذه الأسرة العمرية خير جزاء بندرال ربي لنادم كويد سن ان الحمد لله رب العالمين ان فديت لعل الفور ان فون الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين جمار الامام البوصير الانيميه واذا سخر الاله اناسا لسعيد فانهم سعداء إن سلك وإذا سخر الإله سعيدا لأناس فإنهم سعداء إن ألا إلتني إن قوت إجيال ألا موب كل بألا عند بألا رو بألا هاكم الوليد ألا كل أول أول من تشابنا مولتاك سوناء المود من ولا قلل foftotaago so wonaa almuudu mum wala hiraande ɗaanotaago so wonaa almuudu mum daña teddungal ɗo woni ɗo on woni ceerno mouhamadoul bachir muntaga taha ceerno albarka ma ceerno e ɗemngal denndaangal alluɓe hadara o min mbima albarka a walli a janngini a nehi a feewni a tindini a mawlini a ɓamti a holli min allah subhanahu wa min mbima ceerno albarka ma albarka miñam sehilam cheikh oumar mouhamadoul bachir ari ñaanti golle ɗe haa feewi ɓamti ɗum haa ɓamti walli almudagal walli ɓesmu galle o fof en ɗuwantumo tan yo allah en reena yo allah timmin cagataagal ɗo wiino e jimol makko ɗo tan wonde sinno mi hulaano mi wiyanno ko kanko woni ceer kanko woni cheikh oumar ɗum o haalno e jiɓɗi makko ɗi ɓeydel momi hen noon ɗumon mi ala ala wata hu wiide noon ceernam mouhamadoul bachir kanko de woni cheikh oumar ونامن هالي جل سيد نور الشيخ عمر حالة البلاد في التانغورم أون أدي هادلم دندانغال وياد الله موبة سيرم الله موبة فوق غرفو هالي كان حالة فرتتاك نيابة دن الله كي الله يبان أمو مجلة كم كتيانو إن فلوين يالله جون بلد مكو يالله هدن أمو لوك جوتي ولنمهن شلل إكسال enen fof yo allah timmina almudagal meɗen almudagal weeɓani kono eɗen ñaagi allah e barke oɗo jamma e barke nodduɗo en notuɗen o wali allah mawɗo yo allah timmina almudagal meɗen hada wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ausubillahi mina seytani rajim bismillahi rahmani rahim maa ngi yëkkati sama di ziara baax di nuyu baax suñu bàyyi suñu kilifa ñu toog ñu Thierno Bassirou Mountaga Daxataal xalifa général de la famille omarienne di jël dem suñu nuyoo ak suñu ziara rek teg ci loxoom maa ñu koy tegal ci mboolem kilifa diine fi toog mboolem mboolem kilifa diine membre de la famille omarienne ma jël kàddu tamit di indi nuyoo ak ziar suñu kilifa muy monsieur Macky Sall le Sénégal di indi ak nuyoo ak ziara di monsieur le premier Amadou Ba di indi nuyoo ak ziara di monsieur Antoine Félix Abdoulaye Diome di sa doom di ministre de l'intérieur may xaw a sax taxaw foofu parce que sànq bi mu jëlee tisbaar mi ngi may woo. Thierno Cheikh moom lu may woo naan la mbaa matuwaay yi mat na ci guddi la defante bi nga xam ne moom la Thierno Bachir di wàcc ci caar xool ma ne ah digal day depuis bi ñu commencé liggéey ak comité moom ak réunion yi dégg ma tam benn problème boo xam ne jot ma ko signalé mu ci wàllu karangeeg wàllu ndox ak wàllu ak loolu te sànq bi monsieur le maire jëlee kàddu met get ardo ñëwaat na ci bu baax a baax a baax suñu Thierno Bachir suñu kilifa dama bëggoon aussi nga may ma rek moo bi présenté délégation bi nga xam ne moom laa àndal waaye nga xam ne délégation moom du ko mën a lim ci dafa tax lool xam naa nag ma ciy tëdd rek vraiment adjoint préfet bu Louga muy Abdou Aziz Ba adjoint sous préfet bu Koki Moustapha Sall di tudd di tudd tamit monsieur le président vice président du conseil départemental bu Louga monsieur Badal Samb adjoint maire bu commune bu Diak Ardo adjoint maire bu Louga commissariat central de bu Louga central division bu ki yor wàllu ndox bi fii ci fii ci Louga waa Eaux et Forêts ki yor wàllu ONAS wàllu assainissement ak wàllu euh, njàngale bi ak wàllu tamit sapeur pompier ak tamit euh, vraiment président du conseil départemental Thierno muy délégation bu am solo boo xam ne moo ànd ak man tey délégation bu sawar ñëw fii ci Thiar Peulh parce que wax dëgg yàlla bi ñu commencé liggéey bi bi commencé liggéey ba léegi muy ci CLD bi ñëw ba ci CRD bi ñoom ñëpp ñu toog sa sama ginnaaw sa sama wet lépp li nga xam ne daal vraiment Thierno jotoon ko sant sant comité bi sant ko Thierno Cheikh Omar vraiment jotoon ci liggéey liggéey bu am solo liggéey bu am solo loolu laa bëggoon rek euh, euh, témoigner. Thierno Bachir suñu bàyyi fii aussi bu fi ñëwee dañu ci turu chef de l'État te yónni bi ñu njëkk a yónni bu fekkee jotaay bu mel nii. ci bis bu tedd bu mel nii ci weeru tedd bu mel nii mooy ne moom mi ngi sàkku ñaan parce que ku jàkkale Thierno Bachir yàlla yow li mooy sàkku ñaan ki kilifa bi réew mi mi ngi ñaan nga ñaanal baax baax sax fi parce que Sénégal yow jàmm la coow li mën naa bari wax ji mën naa bari waaye Sénégal moom réew réew jàmm la parce que loolu moom vraiment que sa maam moo moo ko moo ko liggéey suñu kilifa moo ko liggéey yow tamit liggéey bu am solo te Sénégal dafa nekk réew moo xam ne réew jullit la loolu moom lu leer la waaye dafa rek réew jullit ci biir réew jullit parce que ñun suñu diine ñun ñoo ko yor mooy suñu xalif moo tax lépp ñu def rek dañ ci dégg seen seen diggal dégg si seen waaw balaa ñu koy tëddal bëri na décision yi xam ne état da koy jël njiit mi da koy jël mais bala nga koy jël rek da ciy diisoo ak ñoom te ku ne xam ne Sénégal Thierno Bachir buy toog relation bi ñu am ak moom parce que maa ngi tuuti pour wax doomam la mu xam ko bu baax a baax ki ki fay dara koy fonk bu baax a baax a baax parce que lii bu amee ñun dañuy xel suñu tànk tubéy daa ci taxaw vraiment nu nu mu waree donc ñu koy ñu ñaan vraiment nga ñaan Sénégal sax jàmm mu lay sax dama sàkk ñaan parce que xam ne ak programme yi nga xam ne mi ngi koy sumb pour Sénégal jëm kanam nga mën ci may doole nga gën ci am tamit kattan parce que réew moom li ci président dëgg dëgg ñëpp xam nañ mooy réew mi jëm kanam ci wàllu lépp ci wàllu lépp jël Bachir li koy wér firnde mooy xam naa ne sànq bi nga bi nga ñëw sax yaa ngi jàpp benn tali muy tali ba sàq mooy tali bi nga xam ne ñu koy defar entre Louga ak Daara a baax a baax pour tali tamit a jaar yoon loolu si mooy tamit ambition fii tamit ci ci ci région bu bu Louga ah bu la waxee tamit ñu koy monsieur Mbirou ñaan Sénégal comme ni tamit dañuy jëmaat ci nawet parce que xam réew moom ba ne Sénégal di nga wax wàllu koom te suñu réew moom booy xool li koy wax dëgg mooy mbay ak sàmm te ñu xam nañ baax a baax lu ñu ci taxawee vraiment ñu ñu ngi sax ñaan vraiment nawet bi ñu jëm yàlla may ñaata yàlla may ci ndam may tamit ay xéwal loolu mooy ma fi indi woon moom bisu Laylatul Qadr la parce que vraiment wax ji moom du gudd noonu vraiment daal en tout cas man en tant que la région de Louga maa ngi sax ñaan nga ñaan bu baax a baax wax tamit liggéey bi nga xam ne moom la ñu gisee ko doxal ak jàmm maa ngi gën a sàkk ñaan si tamit ak ñu ma àndal lépp nga ñaanal baax a baax tamit vraiment ñu gën gën a jëm kanam en tout cas ñun day vraiment ci administration régionale bu Louga vraiment Thierno Bachir moom a a baax ci ñaan moom moom laa jaxale parce que bu may bu ñu affecté Louga du ma ko du ma ko mooy juin deux mille juin deux mille dix neuf ñu ñëwee rek daal ay ziara si am na ay conseils yoo ma yoo ma ci sa biir nekk tamit conseil ba léegi moom laay appliqué moo tax a yi ma jaaxal rek damay xool lu ma waxoon rek ma ma ma teg ma teg ko ci te biskaa ba si daal mooy kàddu yi gàtt ma ko wettima joni bandiraɓe eɗen jetta presse o e comité organisation jogiɓe ɓe golle ɗe gardugol siré kan e comité mo wondi o e yanirore cheikh oumar mouhamadoul bachir e gila serde waɗa golle ɗe ƴetta rokki ɗumen orde yoɓen liggo golle ɗe ɓe darado hen ɗo ɓe poti daradade hen fuɗɗodade gouverneur e préfet e sous préfet e autorité ji ɗi hen goto foof darima darde nde foti darade nde kon nag ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci seen tax taxawaay ci comité organisation bi depuis bu ñu commencé mbir bi ba léegi lépp jaar na yoon ki leen jiite nag muy Alaaji Siré waaye ci ndigalu Cheikh Oumar Thierno Bachir ndax mooy président comité bi moo leen jox ndigal ñu doxal ñu ànd ak xale yépp kono bi ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm ak kon yi nga xam ne bàyyeekoo nañ ko Dakar ak Fuuta ak banlieue bi ak université ñoom ñëpp ñu ñëw fii ci caar ànd ak xale yi di lal baas di teg sees yi di toppatoo lépp organisation ba mu jaar yoon vraiment ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla di sant tam gendarmerie euh, seen taxawaay sécurité bi rafet na sapeur pompier mbooleem sécurité bi ñoom ñëpp ñu leen di sant di leen gërëm ñi jàpp ci liggéey bi ba mën a yemb mën a baax ñoom ñëpp sant nañ leen gërëm leen ñaanal nañ leen yàlla yal na leen yàlla may barke Cheikh Umarul Fuuti radiyallahu taala anhu lu ci des mooy ñu delloo kàddu gi Cheikh Mouhamadul Bachir mu yeggale li nga xam ne moo des ci guddi gi ndax dañu waxoon ni quatre heures dañu bëgg def ñaan ñi mën a yeeweeku te quatre heures jot na kon nag fa tabarakallahu fii la kàddu yi yem Cheikh Cheikh Tidiane Makki o wii yoɓe jaafno ceerno Mouhamadoul Bachir Cheikh Tidiane Makki neena Serigne Mountakha Mbacké o wiye neliɗo Serigne Abdoul Kadar Mbacké Serigne Mountakha Bachir o neliɗo Serigne Abdoul Kadar Mbacké amon sëriñ bi Muntaqa moo ko mu ñëw ci jotaay bi teewal ko fii jotal ko nuyoo ak cantam ak ngërëmam jóge ci moom jëm ci yow mu ngi nii toog Mbàkke ñu ngi lay wax bismillah mais Cheikh benn kàddu rek jéggalu bi mais kàddu gi kàddu njabootu Cheikh El Hadj Omar la yëpp mooy ngi sant ñëpp waaye di sant seen seen xarit. sunu cheikh ci taxawayam bi nga xamni ni rajul ka alf mom taxaway bobu la taxaw ben nit bo xamni taxaw na waye taxawayam mën nañ ko luñ ci junni taxaway góor mais fa tabarakallahu ahsanul khaliqin muy taxaway bo xamni farada faragata la ci moom mu xam ko di ko def waaye wuutu ci kër Cheikh El Hadj Omar yëpp ndax ñun amuñu kenn gisuñu kenn ku dul Cheikh Mouhamadul Bachir mooy sunu Cheikh El Hadj Omar kon Cheikh Omar Mouhamadul Bachir bu taxawee taxawaay bi mu taxaw xam ne lii li ko war la mu def ko ñun ñëpp njabootu Cheikh El Hadj Omar yëpp. ak taalibe nekk ci xadara Cheikh El Hadj Omar amel nañ ko njukkal amel nañ ko ñaan yal na ko yàlla sàmm yàlla dëgëral taxawaayam yàlla bàyyi ko ci sunu kanam lu yàgg mu yàgg gunge way sunu way jur ba ñun ñëpp nag ñu topp ci gannaawam defal ko lim bëgg mooy lan njabootu Cheikh El Hadj nekk nañu nekk kenn ñëpp liggéeyal kenn. muy Cheikh El Hadj Omar ñun ñëpp nag fas yéene nañu def li Thierno Mouhamadul Bachir bëgg ci suñ ko mënee ak suñ ko mënoon danañ ko def ñu ngi ñaan taalibe yi ñoom ñëpp ñu dimbali ñu nekk benn nit kenn bu dugg suñ diggante wasalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi sant Thierno ci kàddu Thierno Mouhamadul Bachir xalifa bi nee na ñu ngi sant monsieur le gouverneur Cheikh Tidiane moo koy wax nee na monsieur le gouverneur dafay wax ni buñ la yónnee martaba ki la yónni nga yor waaye nag fekkoon na ki la yónni nekk ci kër gi muy président Macky Sall ñëpp gis nañu ñun ñu téye sunu kilifa gi. ñun ñu teewalee ñu mu yëm kon nag soo ko fi teewalee nga nekk gouverneur de la région ñu gis sa taxawaay ci kër gi ci xalifa bi ak service yëpp kër gi yëpp nag ameel nañ leen njukkal di la gërëm seen taxawaay incha allahu kaddu bi loolu rek soo kaddu suñu rakk suñu cheikh moom mi nga xam ni moo doon liggéey ak yéen di liggéey bii yemba na rafet na yàlla na leen fay ñu ngi leen di gërëm yéen ñëpp si kàddu kër Cheikh El Hadj Omar yëpp nga xam ni sunu taaw muy Thierno Mountaga Cheikh Omar Mountaga Daha moo fi toog ak rakkam yëpp ñu ngi leen di ñaanal di leen gërëm di leen sant bu baax a baax ci seen taxawaay. مالك فتبارك الله تخواي بي رفت لا مجمع ايب فتبارك الله نقول انت السنت بباخ باخ باخ باخ باخ يلون قرب تبارك الله اكو من سنة تبارك الله سرويسي يم يم نقول انت السنت دلون قرب كنكو تيرنا وحي نكو دالي تي غورنر رك وات جيم تي سوف Euh, service d'hygiène sapeur pompier police gendarmerie ñoom ñëpp Croix-Rouge ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm kenn ku ne jàpp na ci bés bi waa Sénélec waa Sonatel waa hygiène waa assainissement waa ONAS yéen ñëpp sëriñ bi mu ngi leen di sant di leen gërëm seen taxawaay rafet na baax na macha allah lépp lu leen waroon ci bés ngeen jëloon ko engagement ci kanamu CRP bi ci kanamu gouverneur fa tabarakallahu gouverneur ñoom ku ne la ngay jëloon responsabilité matal nga ko ba bis bi yëpp yemb jaar yoon kon ñu ngi di sant di leen gërëm sëriñ bi tam mu ngi leen di ñaanal di sant presse bi bu ñu leen limee dañuy juum presse bi yëpp waa 2STV waa TFM waa konu Cheikh Omar waa waa UTV e, waa waa e FTV waa Safina FM ñoom ñëpp ñu leen di sant di leen gërëm Wilane TV ñoom ñëpp ñëw nañu couvrir programme bi ngir lépp luñ fi jëlee muy njëriñ jëmale ko ci addina bi ñu mën ko tasaare depuis ngoon kaamil yi ñu wàccee fii am xalu yi suratul yaasin inna anzalnaahu lixlaas basmala yaa latif mboolem luñ fi def fa tabarakallahu jël nañ ko te lépp muy njëriñ ñu ñaan ko ci takkusaan bi ñu ñaan yal na yàlla faj aaju yi yal na ñu yàlla defal jàmm yàlla na yàlla tappe xol yi yàlla na yàlla tappe xol yi ba lépp nekk benn def jàmm ci réew mi def ci déggoo def jàmm ci ci àddina bi ñun ñëpp kenn ku ne gis sa moroom xam ni moroomam lay waxal fa tabarakallahu ceerno ina yetta ceerno makko sehil makko ɗi ceerno makko ceerno sharif ceerno ahmad oumar mo hoore ñiwo ne dañu ragaloon lu paase dañu tàngoon lool yàlla def nag waa météo ñoom yàlla def ñu ni bés yi daal Ceerno ba bésu laylatul xadr bi bokk na ci bi yi nga xam ne météo loolu day gën a tàng nee na nit nag pas-pasam rek lay doxee كن كن خن سما بس بس من شر محمد المشي سما دكان تشر محمد عمر وريو لو لينو خم لينو رانيل لبول وان سما سري شر محمد عمر وريو من شر بشير يلا أدنى ماشي كان كن ميل بسي جيتان يلا بدل الخليفة نيو نو من شر شريف من شر محمد عمر من يلا سفكيني خليفة بي ترم شريف دوم ترم أحمد عمر لا نيكو يالا دفت يالا دفنا كوكو يو يالا من يوتل يرمن تبس بي يبتك بي سدلول بقل ما تدمنا تيرك لا Ahmad Umar li mu téye woon amul lu mu bëgg gannaaw yàlla yonent bi mu dul Cheikh Umar ak car day dul Cheikh Umar sa papa rek la rek la bëggoon Allah rek jërëjëf yàlla waaye Thierno Chérif jërëjëf yal na yàlla yàggal sa toog ay ci xilaafa Thierno Ahmad Umar yàlla na la yàlla may ngu sut sa way jur Thierno Ahmad Umar ay at mais kontaan naa bu baax kenn ku ne muy taalibeem muy doomam muy soppeem mum xaritam xam na cofeel bi nga xam ni Cheikh Mouhamadul Bachir am na ko ci sëriñam Cheikh Ahmadou Bara War Diop kon nag Cheikhna Cherif jërëjëf fa tabarakallahu Allah jaaraama jaaraama Cheikhna Cherif Cheikh Alhaji Abdoul Aziz Si Malick Dabakh daan na wax ni dikkantam ak Cheikhna Seydou Cheikh Oumar Thierno Seydou Nour Cheikh Omar mu ni ko Serigne Abdou yow yaay sama sëriñ Serigne Abdou ni ko alaaji man yow yaay sama sëriñ ndax yow yaay njabootu Cheikh El Hadj Omarul Fouti kon nag Cherif Ahmed Omar moom it noonu la rek. man daal man Thierno Mouhamadul Bachir Chérif man daal maa ngi lay dénk sam bopp te taalibe bu rëy rëyul gisul boppam sa doomu sëriñ danga koy def sa palaasu sëriñ bu fekkee kooku toog na nag toogaayu baayam ak li doon baayam di def ak li mu doon jàngale war na taalibe bi mu topp tànk kooku su doon ñëwee nag er, toppul jox ko xurum waaye bu ko topp même bu ñu naan xaju sëriñ sax sa sëriñ ba xaj kay bu toppul yàlla kenn du ko topp doomu na topp yàlla di ceer na yoo reew àlla ni sa bàyyi doon doxal nga koy doxal Cherif Thierno Ahmed Omar rek fa tabarakallahu lu Thierno Ahmed Omar doon doxal yaa ngi ci yaa ngi jàngale ba bu loolu passé nee na ñu ngi sant Thierno Mouhamadou Yahya Ba ne yaram wi dafa sutante xam ngeen lépp luñ doon commencé moom moo doon nekk premier lépp lu nekk kër Ceerno Muntaka Taaha kenn mosu ci jiitu Ceerno Muhammadul Yahya nit nag bu magee at yi toll na fenn fii lu mu mënoon da koy naa Chérif ba sax doomam comme Thierno wérul depuis xawaar ñëwul ñëwul foofu te li ko tee ñëw yaram yi moo sutante xam ngeen man Thierno Mahamadou Bachir fépp fu ma toog ci àddina bi bu Thierno Yahya nekkul foofu na ngeen xam ne ngant lu rëy moo ko tey Thierno Yahya Thierno Mahamadou Bachir nee na ñu ngi lay jaajëfal ñu ngi ñaanal yàlla sunu bopp ñaanal yàlla yal na la yàlla waaye mee wér yar sa wér gi fanqal loolu rek mooy wax fa tabarakallahu hmm. fa la monsieur la li ñu yokk ci mbir mi rek balaa ñuy ñaan mooy ñu ngi leen di fàttali jumaa muntaka taaha bi jumaa ji ceer na ay magam ñi fi jaaroon yépp kenn ku ne def la ci la ko war ñoo mu nekk jumaa ñoom ñépp def nañ ci liñ ci war a def bu ñu yeyoo Ceerno xam nga moom liggéeyam yëpp mooy fexe taaral ay maamam ak kër baayam mu yeggale jumaa fa tabarakallahu bi mu ko yeggalee ñun njaboot gi mu ñu seet ni jumaa ji kër gi laaj na ay ziyaar yi ñaar nañu julli fa juma bare woon na ñu fay ñëw julli julli juma te juma ji pare woon na ñu ñaan ko nag Thierno Mahamadou Bachir ñun njaboot gi ñu ñaan ko ndax ñu ubbi ko di fa julli juma mu jël mbir mi yépp delloo ko nee ngeen leen ngeen jàpp seen bés ci ndigal Thierno Mountakha Papatal ak suñ mag yi ñoom ñëpp ñu jàppoon nag ajjuma bii di ñëw incha allahu taala ñu yëgal ko gouverneur ñu yëgal ko waa Louga yëpp wax ni jumaa ji fas ne fas yéene nañ ko ubbi di fa julli jumaa incha allahu ajjuma bii ñëw ci ndigalu xalifa bi ñu ko yëgal ñëpp di leen sakku sa ñaan yal na ko yàlla mottali Mamadou Oumar Sall to Tamba meli délégation mawɗo ɓesgu makko fof nanɗo ɓiyi ko nanɗo sehil ma mbuɗo nanɗo caggal kañum e ɓesgu ndu fof ɓe ngari allah jarama on jarama ceerno sharif wan to kanel barakallahu fof en ngari ceerno yetti fof jarnima fof duyima fof نياغي ما الله سبحانه وتعالى يو الله هكا ان واتدني مول شقيان مكي نك لي موخ دانا تي واخ توتي بودي لون شيخ تيان مكي واخنا بما واخ ما جوباجي دماغي بي دبي على هاد سيدنا الشيخ عمر الله moo ko waxoon sama papa nag Muntaqa Taha moom zawiya rek la ko bàyyi woon la nekkoon ñun ñëpp fa lañ doon jullee yàlla bi def ba alaaji makki Muntaqa Taha ñëw moo yaatal jumaa ji mu def kayiti kayitu jumaa lépp lu jumaa méngóor rek ni mu war mel rek Alaaji Màkki defar lépp baa papaay Cheikh Tidiane Màkki mi doon wax léegi yàlla dogal moto lul jumaa bi ba mu demee ñu ciy ba yàlla dogal ne jumaa bi antu nii la may mbir mi man de waxuma damay ubbi waxuma dara ndax boo amee sa njaboot bu leen di jiitu il faut nga déglu leen féete seen gannaaw bu ñu juboo ci benn mbir bare na ñu ñëw ñu ne def leen jumaa ji wax ma ko ma noppi waxuma dara lépp lu ñuy defar ci jumaa moom alhamdulilah defar nañ ko Cherif Ibrahima Haydara Tijani am na lamp yoo xam mu ngi jóge ba réewu moo Ibrahima Cherif Ibrahima yéene ko jumaa mu ni Ceerno war nga ubbi jumaa ma ni ko déedéet ñi ne nekk sharif yëpp bëgg naa la warmal naa la bëgg naa waaye sama njaboot bi bi ñu waxul man duma ko ubbi njaboot gi nag ñoom it ñu daje ni Cheikh Tidiane ni mu ko nag ñoom ñëpp njaboot gi ñoo maase جبوت منطقة تاها نوكو جوخ لن مني مارك رقم شيخ عمر چن بشير نور ني ني ني دخل ني ديغنت نيوم اك نور ني داف سين كوميسيون من ام ان شاء الله دان كو واخي ني واخ مكو من الحمد لله lii de lañ doon sàkku lii lañ yaakaaroon ci sunu borom du man rek maa dogal ci sama bopp mu commencement bi jóge ci man mu fekk du seen yéene seen àndandoo mais maa ngi sant yàlla nag yàlla xiirtal na leen wax ngeen ma ko mënu ma leen bañal loolu bu budul woon lu ci mbaax bu neen waxee naa ko def ma bañ comme lii ci mbaax la jëm ci diine lislaam ngeen samay njaboot bu neen ma ko waxee sañu leen bañ a noonu aw ma leen lu dul yéen li rek laa am kon nag mais maa ngi sant yàlla bu baax di leen sant di xamal mbooloo mi daal nanu xam ni mbir mi nii la mel Basiru mosul commencé dara muy wax maa ngi def amul loolu amul kenn gisu ko kenn déggu amul amul ñoom njaboot gi ñoom ñoo jógal seen bopp wax ñu wax ma bu ma neexee mu ne borom ma ànd ak ci loolu bu fekkee neexul yàlla ma lànk waxuma nag li ma nekk ngeen nangu waaye man nag sañ bañal sama bopp ku ma indil lu dul yoon bu ma indilee lu dul yoon ma nangu ana kan moo gàddu loolu yow la yow mi waaye bu fekkee ne loolu ma ànd ak ma bañ li ngeen baaxul loolu man doy bu yeboo yéen ngeen dem seen yoon ma des ak yàlla waaye nag ndokk jar ngeen jóg lu mu bëgg daal na ngeen juboo ngeen nekk benn ndax seen maam Cheikh El Hadj Omarul Fouti radiyallahu anhu kenn gisul ci moom mu wax ci mbiri àddina lu ko yàqal te ci diiroom loolu amul mukk ko waxu ko defu ko diglewu ko itam kon nag yéen doomu nit yu baax ñi bu ngeen ñëwee ngeen fekk seen ay wayjur ci diine lislaam ak def lu baax ak digle lu baax ak jokk bokk ngeen ñëw dëgg loolu wuuteeg loolu jaaru lu leen yoon kenn ci yéen jaarul yoon mën na nag sëtu Cheikh Omar ci asko ci nasab waaye ci diine kenn jaaru ci yoon na ngeen topp diine l'islam ngeen topp lislaam ngeen bëggante ngeen demalante ngeen déggoo ngeen bay naayoo e ak ak ak nit ku ne li la jox li la yàlla sëdd doylul ci loolu waay waay waay bu ñu xamoon ni ay yàlla huwal maani yàlla mooy wa huwa al mu'ti amul lenn kuy nit di jox lu dul ku yàlla amul ku tee kenn ku dul yàlla waaye bu ñu xamoon loolu seen ndam dina dum poofti nañ koy men poofti nañ koy men ceerno yi ci na de ñii noon man nag ah sama njaboot nag sama njabootu Cheikh Omar njabootu Muntaqa yéen lay waxal njabootu Cheikh Omar yëpp lay waxal njabootu Cheikh El Hadj Omar yëpp fu ñu mënti ne ci àddina bi moom lay waxal ku ci dëgg ak ku dëgg man lii laa wax man Bachir man Bachir lii de laa wax bu ngeen defee lu ci yëg loolu tooñ ngeen seen te lor ngeen julliti lor ngeen julliti yéen njabootu Cheikh Oumar topp leen yàlla ngeen topp seen diine lislaam ngeen jox seen meen ngeen demlante ngeen bëggante ngeen di waxtaanante bu ngeen gisee kenn ci yéen def lu naka su dul ngeen daw ànd yéen ñëpp ngeen wax ak moom ngeen dindi ko ci loolu loolu mooy àndandoo waaye bu defee lu baax diite def na lu nga koy ree te ndig yooyu nga daanu ci pax bi rek li ko tabbal foofu du la ba yàlla na leen yàlla yàlla na may ñu may leen tawfiq nun dey minen de mawɓe ɓe min gondunoɓe mag ñi nahonuñu de jigandaleete saydi ndum cheikh oumar ɓe ay mag nahonuñu de yien seen jamono bordeem seet lu seen ay wayjur yi nu nu meloon ak nu doon doxale jokk mbokk ngeen def loolu ngeen topp seen diine ngeen topp seen lislaam ngeen xam kenn ku ne yàllaa koy jox li la yàlla wërsëgal jox la ko waaye doy lu ci nga yem nde yontere haaɗe hen tan yo allah min darana on yow nag yow yow nag ne wax Cheikh ci ku jeelaa jikk dal jërë ngeen jëf te sant nañu yàlla bu baax Cherif Thierno Ahmed Oumar mu ñaanal mbooloo mi comme na jotaay bi moom moo war ñaan wala mu digal kuy ñaan sëriñ Mouhamadul Mansour si borom daara ji ba mu gën wuy jee boromam ba mu yegsee sëtu Cheikh Tidiane yaa ngi toog surafaaw yaa ngi toog wali yaa ngi toog Cheikh Al Abdoul Aziz ca dëgg-dëgg ñun wasiila شيخ الحاج عمر لا موجودك كيدم دوم السيد ابو بكر له من شيخ عمر قناو ستو شيخ الحاج عمر تيونو ما لا يجوخ ما مك ما خمن لا يدخله ما خمن بمي دخله ديغنت رك شرفاوي du sa kanam la woon manit mani surafaa yi delloo naa leen ko na ngeen ko jiit julli yéen kenn du leen jiitu ñoom ñëpp li ko dalee ci njabootu Mawlana Cheikh Tidiane Cheikh Awa Qadir ak ñi ñëwoon ñëpp wéri <coughs> Cerno yow doy nga nu Cerno Bachir dafa doy waar nag ndax Serigne Mansour am na ñu fekkee loolu mu ni Thierno Mouhamadul Bachir damaa ñëw fii nag xam nga lu ma ni xaw ma mu ni ko bu ma di wiitee sa borom nga jullee ma noppi mu ni dégg ñu li ma wax Thierno mu noppi ma ni la bu ma wuyutee sama boroom na taxawu ma jullee ma ñetti yoon ma ni ko sëriñ bi man de damaa xamul ni man ak kan moo ciy man de xaw ma ci loolu daal aw ma ci xam-xam aw ma ci yaqin mu ni ma شهد الله والملائكة والأولياء من ما لا يجقدم يا أبي بس جناو ما لا يجقدم من يأسنك كلام الأولياء الناس تفهمه وخولي يلا تمنكم كم خوف لهم وايل سلم وصول يا خوف am na problème bi kay mooy sëtu Cheikh Tidiane yi ñëw nañu sëtu Chérif yi ñu ngi nii man ñëw naa Abdoul Aziz ñëw na njaboot bi ñëw na problème foo la nekk waaye Serigne Abdoul Aziz Al Amine ibnu mu ni Cheikh El Hadj Amath bu taxawee amatuñu wax kon nag sëñ Bachir jëlal sa yëf yaa xam nooy def ak shurafaaw yaa xam nooy def ak shurafaaw manit mani shurafaaw dimbale leen ma ngeen jullee ko lii lépp nag li ma ko waxee damay seet kàddu bi Serigne Mansour waxoon. ndax wali yi dana wax dara yenn saa yi dana wax wax dem ba jamono wax ji fecceeku dafa am na lu ko waral loolu dana am barewul waaye dana am maa ngi segg li ma sëñ Mansour wax ba ñoom ñëpp ñu ni Thierno Bachir doy nga ñu jullee ko tam doo waxaat bi kii tëgg de wax na ko wax na ma woon Serigne Thierno Bachir moo may jullee waxoon na ma su sama borom Thierno Bachir moo may jullee seet leen lii seetal ma lii waaye waaye ku wér di wax wali yàlla danga waaye lii kay lu ñu fàng kenn du ko jeex burki démb la xew lii moom burki démb la rek xëccanki tan wonno ñu ne ñu ne wali amatul waa daañ ngandaa kon ka o yonantin Chérif Makki bismillah يا امين نانغولين يا يا انتم اهل الدعاء والاستجابه فاتها صلاه الفاتح ان الفوف نياغولين الله يالا جون بالد تشارنا محمد البشير حكم تشلال حكم باتن مجد حكم كو ويلي مو المبوبه بسم الله بجاه رسول الله عند الله اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وكوامله وأوله وآخره وظاهره وباطنه وانظرنا في سلك خير البرية سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت راض عنا ولك الحمد يا رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم آه. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين